asalaamaaleykum mbokku senegaal maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di wax ne tey jii dama bëggoon a waxtaan ak yéen fii ci Yeumbeul Nord. candidat yi bëri nañ lool dix-neuf candidats am ci Sénégal waaye dama bëggoon rek ngeen xam ne dix-neuf candidats amul kenn koo xam ne nii. li ma defal jigéenu Sénégal def na ko li ma defal xale Sénégal def na ko. ma ne xam ngeen man lii di wax ak yéen yërëm moo tax ma créé fondation maternité solidaire te xam ngeen boobu at bu nekk dina dépenser xaalis bu bëri pour jàppale jigéenu Sénégal. ndaxte xam ngeen ne Sénégal ku respecté jigéen respecté nga famille ku respecté jigéen yàlla yërëm la. loolu moo tax ma créé fondation maternité solidaire te fondation boobu xam ngeen ne ñeenti waxtu yu nekk jigéen dina gaañu Sénégal ci jur doom ñeenti waxtu yu nekk jigéen dina gaañu Sénégal ci jur doom te loolu boo seetee kër gu nekk mi ngi foofu te man mii di wax ak yéen man jirim laa. jigéen boobu ma nekk nag moo tax ma yërëm jigéenu Sénégal bëgg jigéenu Sénégal fonk jigéenu Sénégal. dama ne ma ne ma ne ne képp ku bëgg a defar Sénégal da ngay toppatoo jigéenu Sénégal képp ku bëgg defar Sénégal di nga toppatoo ndawu Sénégal képp ku bëgg a defar Sénégal. di ko toppatoo famille yu Sénégal képp ku bëgg a defar Sénégal di ko wàññi njëg yi di nga wàññi dund gi di nga wàññi dund gi di nga wàññi dund gi. le 24 mars 2024 bu ngeen ma joxee réew mi dinaa wàññi dund gi dimbali jigéen di dimbali xale yi defaraat Sénégal. man de sama loxo dafa set wecc musuma sàcc xale lu Sénégal musuma sàcc alalu Sénégal musuma lekk alalu Sénégal. te bu neexee yàlla bu neexee yàlla du ma jëlee réew mi kenn dootul lekkati alalu Sénégal kenn dootul lekkati alalu Sénégal ndax alalu Sénégal Sénégal yi yéen a ko moom yéen a ko moom yéen